mu wax it ci geneen xasida goo xam ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastainu la ko tënke moom it ci loolu yi la jëm aataaniyan naafiu xayra nafi mustaxniyan eh, bi jalbihi wa dafi yaquudu lii samana ma biatu wala abqi iqaalatan wala taxawula yooyu yëpp ay kéemtaan la yoo xam ne sëriñ bi da ciy wax li ko sunu borom defal ci barket guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nga xam ne daal diggante yonente bi ak xaadimu rasul sew na sewaay boo xam ne kenn mënu koo xam waaye da nga ciy tegtalu rek di ci wax kéemtalaay kàttan waaye doo mën a wax lépp waaye loolu lépp nag bu amee it ñun liñ ci mën a jëriñoo mooy jikko ju neex ja nga xam ne moom lañ ciy jàng ndax Sëriñ Tuubaa kat noonu mu bëggee ci yonente bi noonu la ko jikko woo ba bu gàmmo masaan jot noonu yonente bi ni ko sunu borom tagge ne ko sa jikko ji daa neex lool wa innaka la ala xuluqin azim moom ñi ko miin nee nañ bu gàmmo masaan jot daan na fes fesal mbégte ak ubbi xar kanamam ak ñëpp ñi nga xam ne yittewoo woon nañ ko mu yombalal leen gise bi ak mbo boole koog di di leen jox bu baax a baax a baax loolu nag da koo jagleeloon weer wi ba bu uh, nit masaan am soxla soo xam ne dafa jàpp ne uh, soxla su jafe la day nekk ba weer woo wi teru bu weer wi teroo mu mu jéem a dox soxla soosu ndax mu faju ndax xam taxawaay bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa di Rasuul amoon na ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa waaye nag loolu tabe la waaye boo ñëwee ci jàmm ji kooku tamit ci jikko yi la bokk boo ñëwee ci yaatal njaboot gi ci jikko ji la bokk boo ñëwee ci bernde ci jikko ji bokk boo ñëwee ci tagg yi mu ko jagleeloon loolu meneen mbir la kon daal dafa mel ni ah, ah, yonente bi daal ñëpp ko moom jullit ñëpp ko bokk waaye yàlla sunu borom beral na ci loxo xaadimu rasul eggale ko ci foo xam ne loolu mbirum sunu borom la kenn xamul nu mu demee lu dul ñoom ñi nga xam ne ñoo ko seq yàlla ko xam ak sallallahu alayhi wa sallam ak xaadimu rasul mi nga xam ne moom la defal teraanga yooyu kon ñun ñi nga xam ne nag ay jullit lañ nañu bàyyi xel loolu xam ne mën nañ cee jëriñu waaye niñ ci jariñoo day dañuy jikkowoo seen jikko ya jikko yoo jikko ya nag lu jafe la waaye liñ ci man rek mooy def sunu kéemtulay kattan bu weer wi teroo ci mbaax ubbiku tabe yaatal lépp nañ ko jéem a def boole ko sellal ko kéemtulay kàttan jël sunu xel def ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa def ko ci alquran def ko ci lim fi indi ci ay njàngale ndax kat koo xam ne sa sa yàlla bu la naree dimbali ci loxoom la ko jaarale kooku kenn mënu koo fay ndax lislaam mooy ndimbal mooy diine fa yàlla te yonente bi nit ñi bari na lool ay milliards lañ waaye moom la tànn moom la neex mu def ko ko kenn du ko wax lu tax nga def ko ko kon ñi ngi ñaan sunu boroom mu taas ñu ci barkeem ah eh, yoolu eh, gàmmo mu defal ñu ko maasale ko maasale ñu ko ñun ñëpp jërë ngeen jëf wa sallallahu taala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam